collectifu habitants yi nekkoon ci terme sud ba léegi ñu ngi laaj ñu delloo leen seeni suufa suuf ci ab assemblée générale bañ doon amal ñu ngi laaj ñu delloo leen seen àq ak seen yelleef ñeenti at gannaaw déguerpissement bi. du lenn lu dul euh, ñuy ay sénégalais nekk ay euh, de ay militaires Sénégal jëk jóg jël décider ne day joxe suufam yoon joxuñu ko. Euh, am ñu jóg rek mbubboo seen doole ñu fekk ñu ñu toog defuñu leen dara ñu jëjëti ñu léegi nag ñuy xaar ci état bi rek le plus rapidement possible ñu dellu si euh, li nga xam ne mooy droit wu waa terme sud ñu indi ñu delloo leen ko ñi nga xam ne ñoo seq boobule collectif di wéy di dundee yaakaar gannaaw ndogal yi nga xam ne autorité yi jël nañ ko dakkal travaux yi ci site yu bëri bu ci mel ni cité terme sud après décision yi euh, autorité état bi jël euh, soit disant que yi site yu bëri dañu leen a war a dañu war a stopper travaux yi terme sud ci la bokk. donc nag boo loolu am na part am na jaloog bu établir entre collectif des habitants yi ak euh, ak état bi. ñoom waa collectif bi nag li ñuy xaat ci gouvernement bu bees bi bari na ndax ñoom ñee sax ñoo jàppoon ci xeex bi bu mbir yi di soog a door. ñi nga xam ne ñoo fi toog tey ñoo ñëwoon wàllu si ñu donc ñoo fi ñëwoon jàppale ñu euh, am na ci information yu bari yoo xam ne sax ñun amuñu ko woon ñoom ñoo ko wuti ba am ko indil ñu ko. donc euh, wax ñu xalaatal ñu naka la ñu war a taxawee ñun boobu ba léegi wàccuñu waaw ñu ngi ci kawam ba gis ngeen ne euh, ñoom bi ñu ñëwee toog la ñu njëkk a def mooy euh, mbiru terme sud. ci jamono boobu nag affaire terme sud juróon na ay dégâts yu bari ndax bu ñu sukkandikoo ci waa collectif bi am na ñu ci bëri ñoo xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan am si itam ay njaboot yu bëri yoo xam ne dañoo tasaaroo.